c'est la référence. Salam alaikum yi yéen itamou la référence internationale juróom-ñeenti waxtu jot ca dingiraay Taïba ak li 5 e jot itam seen ni fii ci studio mo marlo Lo ñu dikk ak yéen ci xibaaru suba gi ci kàllaame ko ci atal bu ngeen taaxiloo tuuti rek ñu jukki leen ci gëna fess bokku na ci ñu waye itam ñak taxul ñu ñew ci yeen dafa di seen dong moo tax ñu ko ñu jubal ci ci yeen lolé la waa jamiyatul ansaarul diin nguur gi ndax bu wesso CDD ak CRD ñu fa doon amul taxul benn yoon ñu tëral la ñu won fofé foofee ca Taïba rawatina yoon bi bi dox diggante Dingiraay ak Taïba ci am ndaje lañ ko fësal foofee ca Taïba ña seen daa ci dégg Cheikh Babacar Dieng ñeneen ñu mer lool ba futt mooy kuréel gi ñu duppee amicale des amis du port nee nañu nag sonn nañu taayu nañu ci xaax bi lu ñuy sàkku ci kilifa yi mooy ñu wàqi port bi ci ni mu gën a gaawee ngir suqali koomu Kaolack waaye itam wutal ndaw ñi ab xëy daa ci dégg Cheikh Tidiane Sarr benn million bu soxna Mariama Sarr yi ba ñu yëkkatee ñenn ci ñoom xaar na kuréel ga ñaar indi féewaloo ci koppang ba tolluwaayu koppar ba amul ah, solo li am solo mooy jëf ji soxna Mariama Sarr def daa ngeen ci dégg Cheikh Tidiane Diagne xabaaru bitim réew dañu daan ci ànd ak soxna Ngoné Ndiaye Kane tàggat yaram Serigne Moussa Kane li yëglekaay yi xëyee tey ji mbiru El Hadji Seydina Omar Cissé lay doon bu li lépp yembe mbokk yi xabaar yi daal di bu ñu ñaanalante wala taaloo lu ñu dikk ak ci yàttal gi faram gi gannaaw bàkk bi lay doon dal leen ak jàmm mbokk yi yéen itam la référence internationale ngir ay xabaar yu leer te wóor kaddu gi di bàyyeeko fii ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Ale Momar Lo Codou Seck madame Keneme man ci wàllu xarale gi ba dégg-dégg bi man di leer bi la jotaay xabaar dañ koy door rek bi am niki démb ab oto bu jóge ko woon ca Ndofane doon wutali luuma bu Mbirkilaan moom oto ba nag moo daal di këpp ñu euh, bëre jële ci ay gaañu gaañu foofee ca booru euh, Thiawando kenn daal di cay ñàkk bakkanam ñattee woon ci saasa ca bërëb ba ñu ngi ci indi seede ci micro Cheikh Ababacar Babacar Dieng. xew-xew bu métti rek muy suñuy mbokk di su suñuy njaboot di suñuy rakk di suñuy lépp kër ndawal sama goro la kii faatu sama jarbaat la ñu gaañu ñëpp samay mbokk lañ ñu koy jaale ki gaañu di ñëwenti ñi am ay gaañu gaañu ñaan yàlla na yàlla xoyofal te yombal ki gaañu yàlla jéggal kan yàlla yemele ko fi te seddal yoon yi te yombal faj wi boo wéral leen ñoom ñëpp dellu lañ ci sago waaw bëri nañu fa dëkk nag ñi ci des ci tund wi lañ dëkk ay kon nekk al dëkk yu ko wër mbokk yu bëri gis naa leen fi wax dëgg yàlla fa tabarakallah man maay seen daara non non non man magam la ci gaañu na waaw am na ku ci gaañu waaw bon ñun nag dañu rek ñu dem sur le lieu daal dañ doon dem mbirkilaan luuma si route Latmingué bi noonu mais bi ko oto bi dafa daanu daal ba këpp kese wala dafa dajeeg oto je sais pas xaw ma ndax dafa dajeeg oto na mais bi ma ñëwee man moom rek laa fa gis oto bi Ndofane la jóge woon waa Ndofane la woon ba amul yeneen gaañu gaañu yu doy waar non am na ay blessé mais xam naa daal bëriwuñ blessé yi garaawul noonu am ay blessé ñu ngi fii sax mais am na ñoo xam ne daal génn nañ si te dara dalu leen mais na ñun ñuy taxaw Basirou Dramé Ousmane Dramé xale bu góor la bon xam naa si ay vingt cinq ans yooyu ah nga am na soxna nag am na ñaari doom ah non non moom dawutoon c'est un travail da doon dem di liggéey si luuma yi quoi c'est un commerçant yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1 ñu wéyandi ci xabaar yi junjoon nañ leen ko euh, sànq toj gi l'autorité yi toj yenn ci ay place ngir def rek taaxal dëkk bi soxna Mariama Sarr yëkkati yoon lu tolloo ko benn million daal di leen koy jax jagleel ñoom artisan yi ñenn ci ñoom jàpp ne benn million boobee amalu leen benn njëriñ ka leen jiite ak ñamu àndal di ñaawlu yooyu la euh, kàddu waaye itam boole kook di leen di leeral Cheikh Tidiane Diagne. gannaaw déguerpissement bi kilifa yi amal jàmm jeex na ci diggante ñi nga xamante ne ñoo di kon artisan yi kawle gi bu fekkente ne genn wet gi ñu ngi ñaawlu taxawaayu kilifa yi ak itam ñu ngi leen soofantelee ñekke des moom jàpp nañu ne loolee du seen wax te tamit la ñuy wax xamuñ ca dara li nu mel xibaar la bu ñu leen joxoon ca fan yële ñu weesu tey kii tey nag ñenn ci ñi nga xamante ne ñoo faree foofe di seen mbokku liggéeykat daal di nañuy wax ne ña wax loole waru ñoo wax ndax amuñu kàddu tey tamit li ñu wax teguñu ko fenn Abdoulaye Dianka gën a siiw ci turu Go Dianka moo jiite réseau pour la promotion des artisans yu nekk fii ci Kaolack waaw xam nga artisan yi wax noonu dañuy wax rek mais xamuñ lan la Mariama joxe parce que joxu leen ko madame la maire la ko bu la joxe un million la maire la am na façon nit ñu mel noonu am na ci ñoo xam ne ni ci sax biir njaboot léeg-léeg wax loo xam ne sax yëgoo ko wala santoo leen ko ñi doon wax loolu nag sama njaboot lañ bokk waaye dañoo wax te tàggoo wuñ dañoo jaar fu ñu war jaar dañoo wax lu ñu war a wax bi avancé na bu baax te itam jot nañu ci dépenser xaliss bu takku. yoon bi dong dong dong presque def nañ ci 6 millions soixante quinze francs pour nga mëna a observer pour dugg bi terrain bi parce que fofu ben canal la won su loolu passé dañ ne woon bala ñoo def foog ñu dugal courant foog ñu dugal ndox duggal nañ courant bi té ñu ngi waaj duggal ndox mi. li di tuuma ñu tek ko ci seeni ndoddu ñenn ñi japp sax né dañoo farak maire bi bay politique indi na ci ay léral mom Abdoulaye ak na yëpp politique la suñu amee politique bo xamné artisan dañ am fuñu nek am seen garage bop momal ko seen bop mu am këyit bu ëllëgee kenn dootu leen yëkëti ah politique bu dama Cheikh Diagne bëgg arab gannaaw ba ñu leen jëlee ca garage yi Nioro bés bu yàlla sàkk ñu dégg ay coow ak lu mu ci mënti doon ñi nga xamante ne kon ñoo takkee ci réseau pour la promotion des artisans bu Kaolack daal di nañuy wax ne kii nga xamante ne moo di jëwriñ ji ñu dénk fànn bi ñu mel bi mu waxee li muy wax ba noppi la gëj ci barab bi ba léegi. cant ngërëm ñenn la Cheikh Tidiane Diagne ñu desandeek ñoom ñoo ñee di artisans yi donte nag ña ngay jànkoontelee jafe-jafe yu tar yi waaye terew ña ngay am yaakaar ci liggéey ya ñu tàmbalee jëm nek nekkin waaye itam di rafetlu taxawaayu soxna Mariama sar di sàkku itam ci kilifa yi ngir ñu baral liggéey ba ko ko jox len benn bërëb ngir ngir euh, guro porterie Abdoulaye Diank di président réseau pour la promotion des artisans de Kaolack ak Cheikh Tidiane Diagne. lolu seen wax la won bañ waxé kenn ku ci nek da nga won woon danaa def nangam danaa def li ma war def na def li ma war def madame la maire mom la waxon mom def nako mom pour le moment la ci dess nak état la gouverneur def noonu dana ubbi carrière ubbi na carrière xeyna amna am ci lo xam ne man duma ko man topante ak ñom man nak yalla def na man en tant que président duma jital ni di ko fakasal def na ci ay jéego yaatu nak ouvrier ambulant yi wax mécanicien ambulant amna parce que tax mu am moy dañ ñoo dëgër prix sans affaire bi gaaw suñ ko téro no programmé kon li du am mais yalla def nañ ko yéxa programmé amna ci ñenn ñoo xamna amna fuñu nek mais amna na ñoo xam ba légui ba ñuy xéde taxali pour mëna am dépense mu yobul seen jabot met na trop kon liggéey bi luñ ko mën accélérer mu gëna a gaaw rek man bëgg na vraiment lool nga wax moom amna ci bu baax baax baax baax parce que ay poids lu lañuy liggéey ay camion lañuy liggéey camion xëjul ci kër te courant koy def te nekul kër go dem mëna am courant li nga xam dal bon lañu mëna récompenser sama xel bi mëna dal fi mu toll nii mooy chute ma leen di àbbu ñu abal mako ñu ñoom yóbbu fa ñuy def poids lourd ñu nekkaale fa de temps liggéey bi di pare Cheikh Diagne. kon partenaires yëpp ñëw neen liggéey bi budget bi pare na. waaw am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax parce que lépp dañuy bind di wax am nañ ci yaakaar d'ici quelques jours danañ tàmbale liggéey bi préfet wax na ko moom madame la maire wax na ko da di am ay yoo xam ne yéen koy moomal seen seen bopp kenn dootu leen fu mën a yëkkati loolu nag vraiment Cheikh Diagne jar ngir ngir ko mu dëkk bi ñoom amical des amis du port jaaree ko ci ñaax autorité yi wax ak ñoom ngir ñu fexe waxi port bi ndax euh, ñor na leen lool jamono ji Cheikh Tidiane Sarr. ak xay bi nga xam ne ko nañ ko ci dragage port bu Kaolack amical bi nga xam mom lañuy la amical des amis du port yëkkati nañ seen cadeau di wane ne mbir moomu nak nañ ko teg si rek ne ab processus la manam ab yoon bu gudd gudd Abdoulaye Maron moy président des amical des amis du port bu di won auto autorités yi que ne pooru Kaolack bi lu am solo la parce que dafa amoon solo démb ak barki démb mais courant àddina taxoon na poor bi wàcc niveau matériel bi ñëw na gaa mais matériel bi ñëwul tout suite pour mun a waxi parce que problème bi du waxi port bi problème bi mooy dex gi yëpp la ko jëlee Foundiougne nga romb ay veloor ba ñëw Kaolack loolu mooy wax bi parce que laa dina laaj waxi dina laaj yaatal processus boobu nag Abdoulaye Morone nee na jamono ji nag jot na ñu wax ci bu baax a baax ndax Kaolack waajal ko pooram ngir gën a mën a yëkkatiwaat suñu koom-koom muy ab combat boo xam ne bu ñu sukkandikoo ba tey ci Abdoulaye Morone ñoom fas yéene nañ ko porter bu baax a baax. gis nañ ne il faudrait que ñu ubbeeku pour ñëpp xam ne poor bi waa Kaolack mosuñoo bàyyi seen loxo ñu ngi ciy kii mais léegi dañu gën a bëgg a impliquer tous les Kaolackois ñëpp autour d'un comité boo xam ne suba ak gannaaw suba dinañ mën a taxaw porter du revendication du exigence mais dinañ xamal autorité yi kilifa yi won leen li gën doon suñu yitte te si jamono jii ñu toll mooy ñu commencé travaux yi. dragage port boobu nag wax nañ ko waxati ko nit ñu bëri amoon ci yaakaar ba tax askanu Kaolack di fàttali kilifa yi seen digg yooyu. jaajëf Cheikh Tidiane Sarr amical ba nag la ñu jàpp mooy bés bu ñu waxee port bi yeneen mbir daañu juddu ci Kaolack waaye itam dina am njariñ ci ñàkk xëyum ndaw ñi te it sax nag kawlek dina jotaat xaw kanam ba mu amoon démb bu ñu sukkandikoo ci ab Ablaye Marone ma leen jiite ba léegi ak Cheikh Tidiane Sarr. te bés bu ñu ubbee lii ba commencé liggéey dinañ am xalaatu démarrer les travaux du port sec gaal yi dik di indi conteneur yi port bi du ko mun a contenir yëpp ñu ko di ko traversé indi loolu touru port sec continuation la rek bu ko defee yóbbu ko fële yoon yu bees ñuy defar ak autoroute yi ñuy génnal ak train yu bees yi ñuy war a ak suñu diggante ak Mali mais bu boba ci la ñuy gis rentabilité bu boba camion dootul traverser fi di dem camion yëpp ils seront obligés soit ñu ngi ci port bi di jël ñee nga sa port sec ba di def seen i formalité di dem mais ñun liñu soxal moy nañu commencer bu ko commencé rek bu soobee yàlla dina àgg bés bu port bi ubbi woon bateau yi di indi par 100 conteneurs 200 conteneur conteneurs di ko wàcce conteneur bu ñu dépoté benn conteneur bu nekk mun na jël 20 jeunes on va découper le Kaolack en zone xale yi bu boobaa dinañ am liggéey magal jigen ci adina wërngal këpp kurel gu nek ak bés bi nga tànn ngir euh, màggal ko mouvement pour la renaissance et l'espoir bu kawoon ñom samedi juróom-ñaari fan ci weer wi lañu ñu tànn ngir doon ko am màggal foofee ca kawoon jaxé nañu fa nak fessel yi seen dëkk bobé di jànkonteel nuwaa bi yaay bu wuyoo ci tour mouvement pour la renaissance et l'espoir mour ben association mu nekk fi ci commune bu kawone bëgg-bëgg moy ni fexe kawone mu bokk ville gëna am émergence mais tamit développement mu gën a sax Fatou Sène mooy seen présidente. mouvement pour la renaissance de l'espoir mooy développer durablement développement bu sax ci biir kawoon loolu la mouvement pour la renaissance de l'espoir di wut. espoir ça veut dire que instant bi jeunes yi amatuñu espoir femmes yi amatuñu espoir même mag yi sax suñu papa yeeg suñu maam yi espoir bi fi mu ne dafa commencé tas biir donc loolu la ñu gis nekk jigéen nekk ndaw ñu ne il faut que ñu jóg jóg pour lan jóg pour espoir boobu sax biir kawoon nan lañ koy saxalee nag topp bëgg-bëgg population bi loolu moom moo ñu yëkkati tey. jigéen yi bokk ci mbootaay yi mel ni seen taxawaay mooy ni dimbale seen askan yi dafa nekkoon occasion ci journée mondiale de la femme ba suñuy jagleel jigéen yi di ñëwaat jafe-jafe yoo xam ne commune de Kaolack mu ngi ko jànkonte. jafe-jafe yi bëri nañ dégg ngeen affaire insécurité bi xew ko dégg ngeen problème de santé yi nga xam ne xew nañ ko woon jeunes yi amuñu liggéey jeunes yaa ngi taxawalu jeunes yaa ngi nekk ci ron garab yi di ataaya femmes amuñu financement ku wax waxu développement mënoo bàyyi jigéen ci ginaar donc tey jii problème yi bëri nañ tellement que bu ñu ko doon compter fii la ñuy fanaan. ñu fàttale ko mouvement pour la renaissance et l' espoir bu kawoon muur li mu jàpp mooy ni askani kawoon war na nekk benn di xeex ndool ngir kawoon mu am beneen taxawaay ci wàllu développement fii bi 2035. sant la gërëm la nuwaab yaay di sëg sa micro foofee ca kewoon jigéen ji nag seeni jafe-jafe bi ci gën a fës bokk na ci wàllu financement am ci lu ñu jàpp tax rek amal nañu lancement ben projet fofé ñu duppeek calebasse de l'espoir ngir gungé ñenn ci ñom way itam tàggat leen bu ñu sukkandikoo ci présidente ba di madame Fatou Sen ak Nouabiaye and ak population bi pour xeex li nga xam ñom ñoom ñong koy jooytu ci biir commune ko Kahone que jigéen ni dañu am problème financement bo togué ak ñom ça fait maintenant deux mois man ma ngi réunion ak jigéen ni lan lañuy wax ñun bu ñu amoon ku ñu jàppale parce que bëggu ñu leneen lu dul liggéey liggéey rek lañu bëgg lolu nekkul projet bo xam dafa joggé ci man ma imposer leen que mais demande bo xam dafa ci man aussi ñu waslu ci lan def ak suñuy partenaire pour sens projet programme mouvement programme bi nga de l'espoir parce que tout tourne autour de l'espoir benn projet bo finance solidaire Bo objectif am mom moy ñu jigéen ci problème financement mais képp ko bëgg nga liggéey attanu ko ñu appuyer la pour yow nga mën a dem liggéey matérialiser li nga xam ne yow loolu nga def sa bopp bi donc tey dañuy lancer projet boobu mu am quelques associations de femmes ñëpp duñ ci mën a bénéficier wu nag parce que c'est juste un début mais dina am benn pàcc boo xam ne danañ ci jot beneen pàcc bi ci kanam tuuti danañ ci mën a jotaat commencé nañu sax mettre en place benn comité boo xam ne day assister femmes sur le plan de la formation sur le plan de la gestion sur le plan du suivi comme ça li nga xam ne ñoo ngi koy jiw tey nekk loo xam ne lu sax lay doon ci biir

de la fonction publique nous avons une caravane organisée. Nous organisé Dakar dans di région de Fatick def deux jours c'était le lundi et le mardi ensuite mercredi jeudi nous ngi Kaolack Et vendredi samedi on est dans la région de Kaffrine donc l'État nous des usagers du service public d'ailleurs les agents de l'État de tous les ordres et de tous les corps pour exprimer ses besoins en matière de service nous avons rendre des services de qualité ñu des itam on office du bac pour bachelier yi nga xamné ñu retirer ses diplôme ñu mut ko retirer and aussi ak service médico-social de la fonction publique parce que agent de l'État yu ministère de la fonction publique a une structure le service médical social de la fonction publique Nous ñu un centre au niveau de Kaolack amna également au niveau de Dakar mais dañ ko bëgg décentraliser aussi dans les régions c'est pourquoi nous avons ñëw ñu avec une mission de ce centre là pour def dépistage hypertension mi ngi noonu njiitu réew mi Macky Sall daal di jël euh, dogal dakkal njëndum woto ndawam ya nekke woon ndax bor yu bari yu réew mi yenn jamono ji dogal bi da koo yéex a jël wala bokk dafa yëgul woon pasar pasare googee ñu nekkee woon ak fi réew mi toll tey nga xam ni fànn boo laal mi ngi ci ay jafe-jafe njàngat leeg Bara Diop kuy xalam da ca jaayu barke ba yaay borom waaye xalam demoon na bay neex buum ba daal dokk ministère yee kuréel yi nekk ci administration bi doon jënd ay oto nu mu leen neexee tax na ña ko doon war ñuy gundaandaata ka noos waaye njiitum réew mi daal dinay dëgg frein bi ñu ne est yi lu ne mel lu baax la waaye it lu yéex la te warta yem foofu donc budget présidence de la république 78 milliards sa caisse noire ëpp na juróom-ñetti milliards caisse noire bu président assemblée nationale toll ci juróomi téeméeri million at bu yàlla sàkk waaye nag dakkalum njëndum woto mi donte lu lu baax la waaye feeñal na lu bëri depuis ba jon yàlla tey jile ngay doog a xam ne say ministère ak say direction ñoo ngi dépensé koppar gu nu mel jëm ci njëndum woto gannaaw bu ñu feeñale ci internet bi yenn ci ay rapport ba tey muy doo ko la jëm ci mbaa sax ña nga ñoo xarañ ba lu xóor bu ñu dugg mu set wecc duñu bàyyi benn trace xaw ma bu mu ci waaye jekkalaat toogaay lu war la te sax ndax dogal bi mooy bu yoonu jëm ci dakkal njëndum woto yi président Abdoulaye Wade mooy ku ko yoonaloon benn décret bu mu génn génnee woon atum 2008 ne am na ay service yoo xam ne mënta ñàkk woto benn yoon doy na rek ci wàllu njàng ak njàngale inspecteurs yi seen grève yi li ci gën a fës bokk na ci ñàkkum daamar takat loolu lu wér përëng la ndax dogal gunu mel du nekk saafara gu jur jàngoro tax na li doon dëgg mooy ñu appliqué yoon benn ministère képp moom la yoon may mu daal di jënd woto ci réew Sénégal muy ministère des finances jaarale ko ci kuréelam gii di DMTA moom DMTA journal bi di l'observateur daal di xamle ne lu tolloog téeméer ak ñaar fukk ñoom ngir jëndum woto ñoo ngi doog a xam lu tax nappkat yi nekk ci jafe-jafe gu sax dàkk lu tax baykat yi bu ñu deqee du ñu jiital deq lu tax jàngalekat yi nekkuñ ci classe bi ñoo ngi ci tali bi di kaas rek moo ne de voiture de fonction ci lu yoon wax ñi ko war a am ci réewum Sénégal weesu wut juróom-ñetti téeméeri nit waaye daa mel ne ku am costine ku ne am nga cig benn ànd ak loolu sunu réew mi diis na gan na ki bor kilifa yi nag tegg wuñ benn yoon seeni tànk ñoo ngi leb di dem rek ñu war a dem Sénégal seeni doom di fay rek mille milliards tax na ci gafak ak réew mi at mu yàlla sàkk ay milliards yu limu moom la ñuy génnee ngir mën ko faye bor daaw jekk 273 doon fay ci bor waaye at milee fay nañu lu tollook 364 milliards muy lu tollook 91 li gën a xëtt xol yenn ci ay bor balaa ñuy jeexal wàllu fay gi dana ëpp ñaar fukki at yi ñaar fukki at ak juróom luy ndeyu charte ndeyu réew mi président bu fi falu waroo mën a weesu fukki at ana lu tax ñu koy jox mu am maqaama jël ne ci kuréel gi ñu bokk di mois daal dinay xamle benn réew bu bokk ci moom amul droit jël ci ay moomeelu boppam bor bu toll ci juróom-ñaar fukk ci téeméer boo jël te sunu réew mi di Sénégal mi ngi toll ci 62 pour cent 8 pour cent képp moo ko dese mu yegg waar bu xonq bi te kat catastrophe du ko gën a rëy boobaa sunu réew mi lépp dañ ko tey la tubaab yi naar yi wala sax yenn ci réew Afrique yi jamono gi ñuy toll 62 pour cent Burkina Faso moo ngi ci 32 pour cent Côte d'Ivoire toll ci pour cent te bor yëpp ñu ngàll ci ndoddu réew mi kaaraang du lenn lu ci dëkk kaw yi daal di yëg li ci ëpp lépp moo ngi ci biir Dakar ak jëm ñaajo moo ne de du lenn lu ci bon waaye xaajoon genn wàll gi jëmee ko ci àll bi suuxat mbay mi napp gi exploité leneen lu ñu am jëm ci wàllu ressource yokku ci ndox ak naaj bi Tambacounda daal di am Sénégal yépp nga xam ne seen dund ceeb la dara gënt doon solution xotti suuf ci ci bët gànnaaru réew mi wasaare la ko ci Sénégal wërngal këpp Saalum ak fu mu ci mënta doon ñëpp di bay ceeb Sénégal bay ñii di dundee. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point fukki simili ak juróom-ñett mo botu ci ginnaaw juróom ñenti waxtu ci hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass xel ya dem ci walu wergu yaram ci lañuy addu jangoro ji lembe adina di corona virus na ba pharmacien yu ci réewum sunu gaal daje fii ci ke ngir sotante ci xalaat xol nu ñuy def ba lo ko mom jumtu kay yi ci wara jël waye waaye matu kay yi ci ak ñen ci ay docteur fi ci hôpital bi waye tam ci fu ministère ba ñu denk walu wergu yaram docteur Ibrahima Diop ñu tewlu ko ci micro LH Omar Cissé tey dañoo dajee entre pharmaciens suñu le ministère de la santé fii si Kaolack représenté par notre ami et frère docteur Ndir adjoint médecin chef de région moo tax ñu teewu tey ak pharmaciens yi Sine Saloum yëpp pour waxtaanee li nga xam ne moo jaaxal askan bi yépp muy feebar boobu ñuy wax coronavirus moo tax tey ñu groupe wu tey ut si suñu biir ñaari kàngam ñu koy wax ay biologiste parce que pharmacie nekkul pharmacie yu nekk si pharmacie rek di jaay garab mais dafa am ñett façon pharmacien dafa am pharmacien d'officine mooy ñi ngeen di gis ñuy jaay garab si pharmacie am pharmacien industrie nga xam ne ñoom ñoo nekk si biir industrie yi pharmaceutique yi di defar garab yi am pharmacien biologiste nga xam ne bépp analyse bu ñuy def ñoom ñoo koy def tey nag am nañ si kenn koo xam ne hôpital régional bu Kaolack moom moo ñëw muy docteur Dia ñëpp xam nañ ko keneen ki docteur Penda nga xam ne am na fii laboratoire privé donc tey jii Kaolack su fekkee ne ay analyse la ñuy def soit da nga koy orienté si ñaari laboratoire yooyu donc ñoom ñoo ñu bugg tey ñu ooleen pour ñu defal ñu du jàngal sax parce que coronavirus bi comme ni ma ko suma sœur docteur Fane Ndiaye waxee lu ñu xam la ñun parce que université mëno fa def six ans jang doon docteur mënu lo xam coronavirus mais coronavirus bi comme ni ko waxé dañ ko tuddé Covid 19. ça veut dire coronavirus bo xamné la décembre 2019, mille la génn mu doon lu bess bett médecin yi bett ñëpp bett askan bi yëpp ñu nekk ci nak diko xayma diko xol ba xam nan la mëne comporté wo ñun vis à vis suñu pharmacie ak suñu population. parce que ku wax pharmacie xamné pharmacie mo nekk relais entre malade bi ak médecin bi su malade tité lu muy njëkk def moy day daw ci pharmacien bi te pharmaciens yi dañuy def garde mën nga si am ay cas nan ngay comporté woo nan nga war a def ban numéro nga war a oo sa employé yi yan comportement la ñu war def loolu tey moo waral tey suñ ndaje bi. ñoom pharmaciens yi nag jël nañu dogal ngir dooleel docteur yi nekk ci euh, dëkku Carrefour bi ñu ne ndax bari na ay xew-xew yuñ fi amal ci dëkk yu mel ne Porokhane ak euh, Taïba bi ci gën a fas nag bokk na ci masque yi ñuy takk waaye itam ci wàllu cet gi docteur Ibrahima Diop ba léegi ak El Hadj Omar Cissé en tant que pharmacien est-ce que dañu war a nekk si ginnaaw le comptoir rek di encaisser non dañ am une mission de santé publique moo tax tax tey ñu bàyyi suñu lépp tey ñëw toog pour càmbar xool jël décision xool ban position stratégique lay mën a jël pour jàppale suñu mbokk médecins yi xam nga Kaolack Carrefour la fi waroon na am sax benn centre de relais parce que zone la boo xam ne zone stratégique la tey temps yi rek ñu ngi fi màggal Poroxaan ñu ngi fiy gàmmoo ba dans trois jours ci kanam donc ville la boo xam ne Carrefour la lépp si rencontré si point de vue circulation du point de vue aussi ethnique tout am nañ fi si Medina Baye ay ñoo xam ne ñu bëri foofu la ñuy jëlee ko di ñëw nigérien mauritanien ñëpp dañuy ñëw donc laaj na pour ñu càmbar yan mesure lay mën a jël pour xeex loolu wax nañ ko léegi gel yi dañ ñu bett en tant que ay pharmacien parce que fooguñu woon ne mbir mi nii lay demee mais comme ni leen ko waxee temps yi ñu ngi commencé dire après vision bi casque yi ñëw nañ gel yi aussi ñu ngi ñëw donc pour aussi ñu xool yan position lañ siy jël si buntu pharmacie yi defar nañ aussi ay flyer flyer yoo xam ne dafay am numéro vert boo xam ne mu ngi si biir lépp dañ koy def nag en lënk ak ministère de la santé parce que ministre bi comme ni ko waxee communication bi benn la ay agent de santé lañ ñu ngi nii lëkkaloo ak suñu médecin chef de région liñ leen di lancer mooy mesure d'hygiène yu ñu jël se laver les mains nit ñi war nañ di raxas seen set deuxième bi mooy sol ay masque mais masque yi aussi dafa am nañ koy xoolee am nañ koy jumtukaayee dafa laaj waxtu boo def sa bakkan loolu yëpp daf si laaj ay yoo xam ne foog ñu waxtaanee ko nga xam ne suñ ci rek dinañ amaat yeneen yu bees yoo xam peut être dina ñëw ba nga dinañ ko mën a suñ demee suñ officine yi nag dinañ mën a coronavirus ba ko ak suñ population docteur Diop xew-xew nga sax ba ca des di mutai Taïba Niassène ñu nar ko amal ëllëg ak Ah, talibé yek njabot gu bay gi nak ah, donte nak ñi ngi ci gannaaw ah, nguur gi bolé ko di leen déglu terewul nak ña ngay ay ñaan askanu asunu gal gi yep ngir ñu muccu ci Cheikh khamina Cheikh Ibrahima Niass ñu téwlu ko ci micro Cheikh ababakar Dieng. lima bëgg wax par rapport ak feebar bobu moy comme li wax légui rek ne ñun dañoo nekk ñoo xamné ay talibé lañ waaye nak ay talibé yu xam ne ci état lañ nekk dañuy respecter état té bokku na ci respecter état moy nga bayé ko ay responsabilité ñun liñ xam moy am na bu am sëriñ liko war moy yé talibé yi jox leen ay ñaan ñaanal leen ñu ñaan ko ba pare mu wax leen ne nañ déglu ñi nga xam ne ñoom ñoo spécialisé ci loolu ñu wax ñu état moo am responsabilité te dégg nañ président mu ni affaire bi amul panique amul dara àggagut fenn bés bu àggee ci ñu war a jël ay décision interdit dara danañ ko def donc ñun dañuy continuer di liggéey rek état moom moo am droit ne bu leen ko def bés bu état waxoon ne nag baaxut rek ñun kenn du ko jege ci ñun dañ koy bàyyi xalifa bi moo koy njëkk a bàyyi mais tant que état waxut nag ne nañ ko bàyyi wax jooju ay rumeur ñuy wax bu nekkee ne nag mën naa fee jàllale léegi benn affaire bu importance parce que am na ñaan bo xam ci Cheikh Ahmed Tidiane cherif ci boppam la jógee directement jaar ci baye jaar ci ay talibé mu ne yu melni su xewé nga julli ñaari rak benn bu njëkk bi nga jàng fatiha bam jeex nga jàng qul yaa ayyuhal kaafiruuna ñaareel bi nga jàng fatiha bam jeex nga jàng qul huwallaahu ahadun so paré jàng salaatul fatiha onze fois so paré jàng hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 so paré nga jàng yàlla tiif 129 jé ko 11 salaatul fatiha néna ko ci yéné yéeneyaale feebar bi du ko laal ñun nak gëm nañ lolu kon ñu ngi lancé loolu nag ñëpp ku nekk ku ko a def ko def yéeneyaale ci njabootam ak ay xaritam ak ay mbokkam yéeneyaale ci Sénégal ñun ñëpp ñu def ko li ci des nag ñu bàyyee bàyyi nag suñ bopp ne ko ci yow lañ jëm si ci yow lañ war a célébrer juboo nga ak sa borom fexeel ba feebar bi bu ñu laal bismillaahi may ndokkel suñu weer wi gën ñëw na jukkal Seexi Baay dafa war moo tax tey ma woy Tayba ku màggal ñëwam gi lislaam beeg laahu buur bi teg la sa kaw alfayda fm komaaf ak groupe Medina ñoo leen di may xibaaru gàmmu tey ba 2020 sant baay ñas war na ne suñ ko santut allahu du bég dem màggal ji baay avenir la gàmmu tooy ba pare nañ la tey daal dëkk mbon la gàmmu Taïba ëllëg lay doon fukki fan ci weer ak mars bi ñu ne waaye nag donte uh, kilifa yi amal na nañu ay de CDD ak de ngir waajal ko moom gàmmu Taïba na ñoom kilifa yi ngànk réew mi waaye taxul benn yoon ñu cëral la ñu fa waxtaanee woon tax rek uh, taalibe yi rawatina njabootu baay gi jàpp ne rek dañoo joxul gëdd dëkk bu sell boobee nga xam ne fa la Cheikh Ibrahima Niass Baye gane àddina Cheikh Ababacar Dieng. président national bi fédération jam'iyatu ansaaru diin Cheikh Mouhamena ibnu Cheikh al Islam ñëwoon seet ci tolluwaay gi waaye bu mu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi wane na na kontaanuñ dara ci taxawaayu gouvernement bi te boo muy tuut foofu lañ jëm si wax taalibe yi ne leen gàmmu Tayba gaa ngi nii taalibe yi ñoom ci seen bopp ñu jël engagement rek leel ko seen bopp ca biir ndaje bi amoon ci dëkk diine bi fi la moom doomi Baay Ñas bi xamle ne faydu bi lépp ngi ci biir kon nguur gi dañ koy cëral rek waaye du ñàkk ñooñu tax di dem ci ñoom Cheikh Munhamina ibnu Cheikh al Islam léegi dégg naa ci réunion bi ñu ne gàmmu yi ci poroxaan ak yooyu état bi ay infirmier la fay yónni xeebuñ leen waaye bàyyi assistance médicale moom dafay indi ay médecins yu mag ay spécialistes ay nangam donc ñun manqué loolu mais nag comme ci république lañ nekk il faut ñu wax ak état bi wax ko ne ñu ngi organiser mu ñëw appuyer ñu parce que noonu la affaire bi war a demee mais yalwaanuñ tey tamit am nañ taalibe yoo xam ne mën nañ ko daanaka ci tay bañ seen dara ba dara yu booloo jeex la fi yi deful bi ñuy waajal gàmmoog ren gii bi ci gën a métti ak benn sereer sax mënu cee jaar waxuma laak ñaari oto sëkk bi tembe ak yeneen i rëq-rëq kilifa yiy dëkkee ci capitalu faydu tijaane ya naqarlu bu baax waaye nag xam la ne njiitu réewum Sénégal di Macky Sall lu mu am ci taalibe bàyyi rek na ko gërëmee xalifa bi di Papa Cheikh waaye ndong yi ñoom bégguñ dara doomu Baye Niass moo ko wax te ñu ni tamit wax dëgg yàlla ñu ngi am xalifa boo xam ne sànnikati xeer yi mel ni man yëpp fi ne ñemeetu ñoo sànni xeer parce que dafa fara kilifa gi ñun ñu respecté loolu ba li ñu a sëriñ wax dara ñun ñu wax safaan na xol lañ neexut neexuñu gàmmu Taïba nag talaata fukki fan ci weeru mars tombeek fukki fan ak juróom ci weeru rajab ci lañ koy amal maanaam daal subaak jàmm la Cheikh Babacar Dieng laata loolu nag dañuy desandi ci wàccaay li lu jëm nag ci wàllu ndox mi am nañu xel mu dal ne du manqué benn yoon ndax xam ngeen ni ba am na forage yu boppam yeneen i forage nag ñëw tegu ci kawam bu ñu sukkandikoo ci Modou Khady Niass ak Cheikh Babacar Dieng waaw wàllu ndox moom liñ ci dégg daal na tal xam nga Taïba Niassène moom

gis état bi hydraulique wax dëgg yàlla man yàgg naa fi yàgguma fi ndax bientôt peut être neuf waaye ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk rafetlu nañ seen ànd ak ñoom ndax boo ko seetlu aussi gàmmutaay ba néew na lu nit ñi jàmmandoo donc hydraulique daana ci def loxoom lu am solo lañ ci daan def it nee nañ danañ ñëw bu sobe def maintenance forage en même temps aussi positionné équipe technique yoo xam ne su waree am yenn problème yi ñu mun ñu ci jàppale daanaka loolu lañ soxla ñu nag Agifor tay ma ñeseen jële di toujours dafa nekk Agifor boo xam ne bu spécial la ndax wax dëgg yàlla am dafa toll ay citoyen la ñu toll nii gàmmu tay ba ñu seet buñ koy àddina di fi daje ah tàllal suñ loxo état waaye Agifar bi en tout cas yàlla dimbale na ko am na ay moyens yoo xam ne tey jii bu ñëwee ba lënkaloo état yaakaar naa ñoom fu ñu manqué rek ñun mën nañu teg loo xam ne soobee yàlla ndox moom mën nañu assurer population yi bu soobee yàlla dara du ci manqué. ni ñu koy defee at mu jot ci gàmmu Taïba Niassène muy jàng kaamil ña ngay xam ne nag ne Kamil yee ubbi nañ ko te it nag benn coppite amu ci buñ sukkandikoo ci Serigne Dara ba bi tey ak Cheikh Ababacar nuyu xalifa bi di nuyu imam di nuyu porte parole Cheikh Mouhamadul Mahi di nuyu waa na ñëpp liñ ñëwoon mooy mbiru kaamil bi nga xam ne dañ koy baaxoo di ko def bu jàng kaamil ñëwee bu gàmmu Tayba bi ñëwee ci lañ toll imam Baye bu Cheikh Alhaji Abdoulaye woo na ma wax pour ñu yëgle ne ubbi na kaamil yi alhamdulilah ci la jokkoo man ne comme waajur moo yoroon liggéey bi mu ne ñu continuer ci loolu léegi kaamil yi lim bu nit jàng man ngaa jokkoo ñun ci numéro sëñ boobu mu ngi 77 635 48 25 ak numéro Papa Ousmane Niass moom Alaaji Karaw moom itam mu ngi nekk 77 573 86 11 waaw ñaari numéro yooyu bu lépp lu ngeen jàng ci lim rek bu ngeen ñu ci wooyee danañ ko noté ni mu gën a baaxee jotal ko sëriñ bi incha allah rabbi tànk yooyu lañ waxoon pour ñu ñëw jotal ci ko ñu leen di nuyu di ñaan ñu yegg ci jàmm yàlla dolli ñu tawfiq bañ mën a yeggali liggéey yi nga xam ne moom la fi sëriñ yu baax yi ba kilifa yu baax yi ba yàlla gërëm liggéey yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sëriñ Daara Barham bi tey dañuy des foofu ca Taïba dem ca këru maam Alxaaji Abdoulaye Niass di kër ga Cheikh Ibrahima Niass Yaro Moustapha Diouf foofu ca Taïba moo ñuy xamale kër ga ci micro Cheikh Babacar Dieng. ci këram la yaroo kër maam Alxaaji Abdoulaye nag kër la goo xamee ne Sénégal yépp xam nañ ko xam nañ ko ci mbaax xam nañ ko ci yiw xam nañ ko ci njub xam nañ ko itam ci jikko yu rafet mais buñ demee kër maam Alxaaji Abdoulaye li fay njëkk a fekk mooy alxuraanul karim parce que soir netti na mam seydi mohammed di woy juru mam alhaaji Jangal jàngal na ko alxuraan koy waje mokal te ñom ñaar ñep gisuñu kamil alquran bi amuñ kamil alquran lolu moy ne kër googu alxuraan dafa cosaanu alxuraan dafa samp ay sampu samp bu dëgër a dëgër dëgër kër googu ci la mam alhaji abdoulaye jangé alquran jang bu rafet rafet bokal ko bu rafet rafet waye itam man ko tejuit it waaye itam man ko bind kër gogu ci la cheikh ibrahima انس رضي الله عنه يرو كن مومتي كر القران لا يرو كر مام الحاج ابلاي خم خم لا ci maanaa bu yaatoo yaatu ndax maam alxaaji Abdoulaye dafa amoon daara daan jàngale daaraam bokk na ci daara yi gënoon a màgg ci Sénégal daara yi nga xam ne àddina bi yëpp dañ daan bàyyeekoo fu ne di ñëw di fa jàng si lépp luñ doon jàng ci réew mi ci jamono yooyu maam alxaaji Abdoulaye daf ko doon jàngale ci wàllu xam-xam kon Cheikh Ibrahim man nañoo wax ne dafa yaru ci këru xam-xam xabaar yi bitim réew

Bangui mu nekk nag kër goo xamante ne yi tamit dina mën a tax jigéen ñi am fu ñuy jooytoo waaye tamit xam bu ñu amee jafe-jafe rek fan la ñu jëm ci pàttali nag réewum centre Afrique Ndey Xadi at bu yàlla sàkk lu ëpp fukki junni ci ay jigéen daañu daj ay métit moo xam ñu xoqatal leen ci anam bu ne mbaa yi tamit ñu sàkku leen ci waxtu bi nga xamee ne ba tey Ndey Xadi jëmale ci bëccëg googule ca Paris la France foofee nag jigéen ñi nga xamee ne tamit ay bañkat lañu dañoo laxasaayu rek ni ki démb wane seenuk bopp wàcc ca mbedd ya nag doon amal ab dox bu ñaxtu ci jàmm ak salaam ak dal doxub ñaxtu bobé nak la ko wundoon moy ne rek woné né ñom dal jot na tey jii la ñuy di seen ak ak seen i yelleef ñu dal di koy jot gënoon na ci fës nak mbotay yu ci melni mbotay mbootaay ga duppee bop les effrontés oser le féminisme l'union syndicale solidaire ak itamit mbotay gi di wuyoo ci attaque ñom nak jamono ji liñu bëgg rek moy euh, jigéen ñi jóg takku taxaw tém baña ya fous waye tamit nak di xeexal seenu ko bopp ci patali nak doxub ñaxtu bobé ña nga ko tuddé won rek marché des grandes gagnantes dajeeg ba tey yi tamit nday xadi jigéen ñi ca république démocratique du Congo ñoom i tamit nag ni ki démb sargal nañu leen njukkal leen ndax nag jigéen ñi am nañu taxawaay gu rëy gu mucc ay yipp ci kaw réew ma ndax nag bés bu yàlla sàkk ña ngay taaba taaba di jënd ak jaay waaye tamit nag di daan seen doole ngir la ñu yóbbu ca kër ga ba tax na rek ñu dàkkantale leen les femmes piliers de l'économie xabaar yi bitim réew xabaari yi ñu dem ci Chine ak jàngoro ji di coronavirus foofee nag jëyee ju métti moo dal ca seen kaw ca gox bay wuyoo ci Kanzu eh, ci ab hôtel buy wuyoo ci Xinzia hôtel boobee nga xam ne nag dañu ko jagleeloon rek waaye tawat yi nga xamee ne nag dañu leen a ber ndax dañuy njoxtu ne daal dañoo laalanteeg ñoo xamee ne dañoo amee jàngoro ji di coronavirus niki démb nag eh, hôtel boobee daal moo daal di am màbb ba tax na rek lu toll ci fukk ci ay doomi aadama ñàkk ca seenug ba caa jaara rek daw rëcc ñu ngi leen di wax ba jamono ji kenn gisagu leen ña des ñoom dañoo amee ay gaañu gaañu di wax ne rek nday xat yi l'hôtel boobee dak ma nga defoon lu toll ci juróom-ñaar fukk ci ay doomi aadama xabaar yi bitim réew dañuy xabaar yi biti réew yi ci Burkina Faso foofee yi tamit ni ki samedi bi la weesu nak lu tollu ci ñaar fukki junni ci ay fonctionnaire ñu waccion ci mbedd ya rek doon woné seen ko bopp tàggatee mbel dem gaag dikk ga ñom nak la leen métti dal moy ne l'impôt yee ñu leen di dag ci seen payor payoor na leen ba yegg ci lool tey tamit dañu bëgg nak nguur gi dakkal lu ni mel ba tax na gannaaw ba ñu amee liggéey kat yi faree ci privé bi ni ki samedi gogé nak dajaloo nañu rek ci bourse du travail dal di yoré ay pancartes carte di ca ñaawlu daal lay xew ca réew ma ànd ak ña ngay sàkku nag nguur gi dakkal lu ni mel ca na mu gën a gaawee. xabaar yi. bitim réew. Ndeye Khady li moo fi rusandi tey jii ci ay xabaar yi biti réew mbokk yi jàngeen jëfati. xabaaru euh, tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ndeye Khady maa ngi lay fay tey nuyu mbokku auditeurs yi ñu sóobu ci xibaaru tàggat yaram yi des koy doore ak euh, football fukkeelu bëccëg beeg euh, ñett di bëccëg bu mujj ci phase aller Ligue 1 sénégalaise nag Dakar Sacré-Cœur ñàkk ci kanamu Casa Sport benn bal ci ñaar Teungueth FC dëgëral taxawaayam benn bal ci dara ci kanamu CNEPS Excellence AS Douane am ndam ci kanamu Mbour Petite Côte ñaari bal ci benn Stade Mbour am ndam ci kanamu US ñaari bal ci benn am ndam ci kanamu NGB ñaari tali ñaari bal ci dara ñaamur bu Louga ak génération foot ndam demul la ndam dikkul jàmbaar ak AS Pikine ku nekk benn bal nga dugal sa moroom bu dee nag lu soxal wàllum Ligue 2 bi Africa Promo Foot ñàkk ci kanamu EJ Fatick benn bal ci ñaar jamono bu Fatick ak Amitié FC ku nekk benn bal nga dugal sa moroom Duc ñàkk ci kanamu US Ouakam ñaari bal ci dara Linguère bu Saint-Louis am ndam ci kanamu Thiès FC ñaari bal ci benn benn bal ci dara juróom-ñetteelu bëccëg national une ci poule A bi nag AS Kaffrine dafa am ndam ci kanamu olympique bu Ngor ñaari bal ci benn Gazelle bu Kédougou lapp-lapp yi metti waa AS Cambérène ñeenti bal dara Walidaan bu Thiès ak AS ku nekk benn bal nga dugal sa morom tey ci ngoon nag RS Yoff mooy laale ak Kayor Foot ca Alassane Djigo bu soxal wàllum poule B US Rail am ndam ci kanamu Racing bu Dakar ñetti bal ci benn Stade Thiaroye ak Oslo ndam damul ndam dikul UGB am ndam ci kanamu Assura benn bal ci dara Etix am ndam ci kanam avenir bu Mbàkke benn bal ci dara jamono bu Kaolack am ndam ci kanamu Jeanne d'Arc bu Dakar ñaari bal ci dara Daaru Salaam ak Agel bu Tëngéej tey jii ci ngoon lay doon football ci wàllum jigéen ñi gaynde yi nag jël nañu édition bu njëkk bu tournoi UFOA Dame bi doon amal foofu ca Sierra Leone ca final nag gaynde yu Sénégal dañoo làpp-làpp yi metti waa Mali ñetti bal ci dara national de espoir bu na am ndam ci kanamu US Guinguinéo ñaari bal ci dara Kër Yéli bu Jurbel ak Ngelamu ndam demul ndam dikul KFC ak Croatie jogante bi nag dañu ko dàq ba fukki fan ak ñett ci weeru mars ñu dem ci dendok Europe ak léegi ñaar fukki lu bëccëg bekk juróom-ñett ci Ligue 1 française Metz am ndam ci kanamu Nîmes ñaari bal ci benn Nice am ndam ci kanamu Monaco ñaari bal ci benn Dijon am ndam ci kanamu Toulouse ñaari bal ci benn Rennes am ndam ci kanamu Brest benn bal ci dara ñaar fukkeelu lu bëccëg bekk juróom-ñeent Premier League anglaise Liverpool am ndam ci kanamu Bournemouth ñaari bal ci benn Arsenal am ndam ci kanamu West Ham benn bal ci dara derby bi nag Man United am ndam ci kanamu Man City ñaari bal ci dara Chelsea moom dafa làpp-làpp yi métti waa Everton ñeenti bal ci dara ñaar fukkeelu bëccëg bekk ku am ndam ci kanamu Real Sociedad benn bal ci dara Valladolid ñàkk ci kanamu Atlético Bilbao ñeenti bal ci benn Levante ak Grenade ku nekk benn bal nga dugal sa morom ñaar fukkeelu bëccëg bekk juróom Bundesliga Fribourg am ndam ci kanamu Union Berlin ñetti bal ci benn Leverkusen làpp-làpp yi métti waa Francfort Oor ñeenti bal ci dara Galaba ñàkk ci kanamu Borussia Dortmund te benn bal ci ñaar Bayern Munich am ndam ci kanamu Augsburg ñaari bal ci dara ñaar fukkeelu bëccëg bekk juróom benn calcio italien Parme ñàkk ci kanamu Spal benn bal ci dara Sampdoria Gene am ndam ci kanamu Hellas Verona ñaari bal ci benn AC Milan ñàkk ci kanamu Genoa benn bal ci ñaar ñu dellu fii waxtaanee wàllum basketball national une ñeenteelu bëccëg bi nag Jeanne d'Arc 58 AS Ville de Dakar am ndam ci kanamu Dibalock 88 36 Mbour Basket Club ñàkk ci kanamu Semte bu Sigicoor 51 70 Mbour Basket Club ñàkk ci kanamu Semte bu Sigicoor 51 70 bu dee nag lu soxal wàllum góor ñi ñu ngi ci juróomeelu bëccëg bi bopp dafa am ndam ci kanamu USRA 60 56 UGB am ndam ci kanamu DIC 79 76 day xat yi ginnaaw bu ñu la ñaanalee kendaay yu jàmm li moo gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jëf li ci yéene kaay yi yéene kaay yi L'Obs, Pop, L'As, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf, lu Matin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 lillaay Le Soleil yéen a kaay ñu ko xamal professeur Moussa Seydi ne kim njëkka dal nag faj gi ñu ko faj ba mu wér ñun bettuñu de ndax fa ñoo jël suñuy matuwaay L'Observateur na ko hee def la ndànk de diwaan yi ci Sénégal hôpital ya docteur ya fa nekk amuñu ay jumtuwaay amuñu ay matériel yu doy ngir mën a a ak coronavirus gi donte nag sant yàlla ndax amul kenn ku bees kuñ dégg ne jàngoro ji dalaat na la ñam daloon ñeent lañ kenn ka tane na ñett ña léegi yegg ca nañ ñi ja mooy ne wàllu yoon Karim Wade amatina ndam ci kaw état bu Sénégal le quotidien yi a kaay ñi ko xamal l'évidence yéen a na ko si jamono jooju baayam Ablaye Wade Macky ngay jël oto ya ko état bi joxoon ba pare na di maye xaalis ak ay oto yu bëri moom ji tëra Macky Sall exclusif yéen a kaay na Macky sax fa am lu ko doy partem bale di APR ca diwaanu Ndar ña ngay rayante a ah, yow seetal Awa Ndiaye ma ngay duggoo ko attaqué Mansour Faye li aw yoonu fay kay mooy xay times moo ñu xamal ne saalif Sadio noppi na ngir négocier waxtaan ak njiitiram Macky Sall jàmm del si Casamance ginnaaw bu ko soldaaru Sénégal yi sëkkatalee ma ngay woote jàmm keneen ku nekk si jàmm ginnaaw fitna kaso gañ ko tëjoon Guy mari Sagna bi mu génnee ba léegi na kenn xamul fu mu nekk na tekk tekkaaral waaye tey mujj naa wax si du quotidien moo ñu ko xamal a yaaw seetal Guy Marius Sagna nee na Macky sàll moo jooyloo sama baay ginnaaw bu ma tëjee kaso ci lu nekkul yoon waaye askanu Sénégal ak ñuy dundal démocratie neex ba tax ma génn kaso maa ngi leen di gërëm yéen a kaay bi na Guy Marius Sagna nag ndekete yoo li ñu koy seet yëpp ma nga seen dëkk Casamance fañ ko doon sang yóbbu ko seen xar ga fuufa ya ngir belenda yaramam wa ba kenn dootu ko mënal dara nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ja mooy ne Mamadou Diop ISEG yoon teg na ko loxo ay ginnaaw bu xale bu jigéen bu ñuy wax jay na ba waxee na fa koo hëmbal ba pare bañ ko les ko yéen a kaay na ko yokk ci ne na fa ko wéela tamit jëlaloon ko appartement ba xëy wan loo ko lor mujj di ko bañ direct news ne def leen ndànk de Diop ISEG pièce ndëgg sarax lañ ko laal ndax yëf xam na lu ca ñuul de xanaa xamu leen xale bu jigéen ba jay na ba policiers yi ñu ngi enquête di xool ay atam xam nga fana 17 ans la am njortu nañ nag ne ëpp na 17 ans fa def 6 mois maanaam wàññi ay atam may leer la leer nañ na dàng ni jant tu subaar mooy na juróom-ñetti fan ci weeru mars mooy bés bi ñu jagleel jigéen ñi waaye ren Sénégal benn jigéen màggalut ko ndax njiit réew Macky Sall moo ko xaayee coronavirus gi la ñu bañ mu tasaaroo terewul si du quotidien di ñu xamale ak soxna yu màgg ay jàmbaaru fàkk dëdd bokk na ca professeur Ramatoulaye Diagne Diagne Mbeng ak ñeneen réew mi yéen a kaay moom jox kàddu yeneen soxna yu seen taxawaay fës lool Sénégal bokk na ci jëwriñ ji di Ndeye Saly Diop ak yaay Fatou jaañ maire bu ci Ngàcc de ca kaw Kaolack ndangaan nekkit njiital promise ma ngay wax taxawaay bi soxna yi war a am ba mën a demal seen bopp tribune yéen a kaay ne ren kay feetu 8 mars bi métti na ci soxna yi de waxuma sax feete giñ ko ñàkk a feete waaye fa xam ñu bëri ñu ci faatu ayaw seetal ab accident bu métti moo xam ci yoonu Fatick wi ñeenti soxna ca ak yeneen góor yu ñu ca faatu a kaay gay xam nga si ban soxna la metti soxna suñu wax Marème Diagne waxuma mom waaye ay mbokam dotuñ gaaw fàtte 8 mars wa grand place yene kay nako diwanu ties ngay wax 8 mars ren bi quartier bañu wax Medina Fall jëf ju ñaaw mom lañ fa def soxna suñu wax Marème Diagne a yow seetal soxna si dal ben wajum bëggante woon ak koo xam faram la won fañ doon genn bu tuddu asan gay mo tim soxna so rocci paka di ko bojji di ko bojji di ko jam fukki jam-jam ak juroom ñaar ba xale bu jigen ba faatu ñàkk bakkanam allah yéene kaay bi nag na ma yokkal leen ci xale bu jigéen bi fekk na mu ëmbu ñetti weer o oh, vox populi dëggal ko na Mariam Diagne étudiante la woon ca université bu Thiès ray gu soxor gu ñaaw moom la ko Assane Gueye ray yaayu Assane Gueye nag ci yéene kaay bi nee na waxoon naa Mariam na ko na bàyyi sama doom ju góor ji ndax fa am problème mu xel yaayu xale bu jigéen bi tontu ko ci enquête yéene kaay na ko sa doom ju góor ji yàgg naa tëkku sama doom bu jigéen bi na fa koy ray lu xokk dërëmu ni ku naan leen waa léegi noppi leen wax leen ni yëf yi tëddee te laa koy waxee ñu ne waxal mu ne Marème ñoo bëggante woon doon génn benn bés mu a ma man du ma la sëyal suy ba nga noppalu ma ne ko gis nga bés boo dof dofloo ba dem sëy ak keneen beneen góor gu ma mooy faa lay rey ba nga dee wett caaxaanu ma de ndax man ma laa bëgg ba dof ba miir ba jaxasoo xaw ma fu ma ne ah ma dem Maroc Marème dem sëy ak beneen waay ab moodu moodu ma oo ko téléphone na ko la ma la waxoon defoo ko man nag li ma la wax danaa ko def mooy danaa la rey waaye nekk fa di dugg na fii génn na faa ma dem porté ko plainte a ñaata ko rey ma waa kër yaa ngi ci suuf ma rocc paaka tiim ko jam ko tay rey ko ndax dama ko bëgg waratoon a sëy keneen waa ma ne yéen ñaar ñëpp juum ngeen marem bi mu xamee ne du sëy yow bu mu lekk sa ñetti millions te na la teel a wax na bëgguma la ngeen bañ a sori waaye yow tamit bu doon fanweeri million sa war sa tax nga rey ko te jigéen ñi bari nañ ko lamb yaa tey daagul fañ la nobee bu doon lislaam la yow fañ lay rey rek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 Le journal Nday Khady Sadio.